asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan wu gàtt jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak valeur yi ñu bokk eh, diirub eh, daanaka weer wala ñaari weer yoo xam ni waxuñu leen lu jëm ci waxi daara ji li ko waral it ñëpp xam nañ ko ndax mënee su la boole ñaar yu bokkul ay naqar ak tiis ak njàqare ak loo xam ne lii lu ñu war a lijjanti la te mu mën a xaar moo tax kenn waxu leen ci dara fa lillahi alhamdu wa shukru kule nañu ba noppi ba tey jii rek maçon bi mi ngi woon ci poche bi nga xam ni fa la ñu doon jaarale gravier bi ak suuf seeg yëf pour mën di ko kule moom lañ doon mottali tey jii euh, ko defee am na lu ñu tàmbaleek euh, menuisier métallique bi ci bunt yi ak frontière yi ba foofa tamit alhamdulilah avancé na yaakaar naa ne moom itam ci biir semaine bii danañu livrer suñuy bagage su ko defee bu ñu ci àggee li cay topp mooy ñu raax suñu raaxee ba noppi euh, daal di mën a ñëw nag euh, monter frontière yeeg bunt yi suñu ko monter mu des ñu karale wala buñ ko amul it ñu def béton de forme suñu karaleet dañu xalaata peinture ba lépp jaar yoon foofu daal fa lañu toll ci liggéey bi di feddaliwaat suñu kóllëre ci yéen di leen ñaanal di sàkku seen ñaan incha allahu xam naa ne suba wala gannaaw suba bu yàlla dogalee frontières yi ak bunt yi ñëw euh, daañu ci daañu leen ko won moom ki nga xam ni mooy liggéey frontières yi ak bunt yi jox nañ ko dara bu yàlla defee mu ñu livré te fekk loolu jàppandi incha allah ñu mottalil ko ko bu ko defee jàll ci leneen di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal di sàkku seen ñaan ko defee ku am rek looy dimbalee daara ji nga jaarale ko ci numéro téléphone bi 77 634 06 68 wala nga jaarale ko ci Western Union wala Ria wala Euh, MoneyGram wala yoon weneen woo xam rek te nga xam ni jàppandi na fii ci Sénégal waxtaanu tey wi nag mi ngi jëm ci tomb boo xam ni bii sama benn jarbaat laa ci doon waxtaanal mu ne ma lii day defoon ko waxtaan mu dugg ci internet bi dana baax yaakaar naa ni nag yàgg na waaye mës lañ ci def waxtaan muy jafe-jafe yi nga xam ni mu ngi am ci biir néegu sëy ñu bare di ko jànkonteel ci ñàkk xam lu ca yàlla atte ñàkk xam lu ca lislaam dogal ñu bare bare bare dañ ci def wala ñu wax ci luñ ci wërta wax wala luñ ci wërta def wala ñu am fu ñu ragal àgg te fekk boobu charia may na leen loola ñoom waaye kumpa baaxul bu ko defee loolu lañu bëgg euh, leeral li ci ëpp solo nag mooy bu xamee ne jafe-jafe am na ndax tànk jàmm ngi am moom ah, dañuy dund mbir ma rek xëy na daañu soxlawoo ay conseil ci nu ñu gën a yokkee farlu yokk góorgóorlu waaye bu jafe-jafe amee foofu la gën a soxla ab taxawaay ci leeralal way dencante yi ñoom ñu xam kenn ku ci nekk lan moo war a doon sa taxawaay ñun wolof nag li ñu xam mooy muñal yow ku góor ki muñal ko yow ku jigéen ki muñal ñaari baat yooyu nag jëm ci ku góor ak ku jigéen di benn baat mooy muñal xamuma ko ci lislaam moom gisuma ko ci alquran gisuma ko ci xadis muy loo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wa da koy santaane ci baat bii ko sénégalais yi di waxee muñal nag li ko sénégalais xamee moom mooy ñu lay teg lu jaaduwul nga koy nangu te boobu moom bokkul ci bi nga xam ni moom la lislaam jàngale lislaam li mu xam daal mooy nañuy tegante lu jaadu kenn ku ci nekk am droit ci biir sëy bi am ci ay devoir kenn ku ci nekk góor góorgóorlu ci def say devoir def say laaj say droit loolu moo war a nekk rafetal googu bañ nañ ko waxoon naa ko fi ci waxtaan wu yàgg woowe ne alxayru baatu yiw alxayru baatu yiw boobu xaw ma lu tax mu dem ba dajeeg sax baatu wolof xëy na am na ñu ko xaw a taqaleeg benn baat buy jib ci bu ñuy takk waaye ala kulli xaalin sëy daal yiw képp nag la war a doon moom la suñu borom tabaraka wa taala di wax wa aashiruhunna bil maarufi na ngeen rafetal seenu nekkin seenu dëf dëkkin seenu jëflante ak ak seeni soxna bil maarufi ci lu rafet loolu su fekkee ne am na rek ku jigéen ki moom xam ni dafa am ay xàq laaj ay xàqam xam ni dafa am ay wareef def wareefam ku góor ki kazalika yaakaar naa ne su boobaa coono du bari bi ci toppitam nag bala ñuy dem ci li gën a am importance mooy sëy dañ koy takk ndey bàyyi baay ñooy ay ay kilifa ay bokk ñooy ay kilifa waaye buñ ko takkee ba pare nag na ci génn ñépp génnee seen loxo bàyyi da ciy génnee loxoom bàyyi ku jigéen keeg bàyyi ku góor ki yaayu ku jigéen keeg yaayu ku góor ki waxumalaak nag ay jigéen ak càmmiñ ak këfin ak këfin ñooñu ñëpp dañoo war a génnee seen loxo ci booba sëy waaye bu fekkee ne génnewuñu ko ci di am njaay indi jóob kii di ci lijjante lu ca yoonam nekkul kee di ci wax lu ca yoonam nekkul kii di ci jéem a revendiquer droit bu mu ca amul loolu bari na sëy yu yëngatu looloo ko yëngal te ñooñu nga xam ni ñoom ñoo nekk di dugal seen tànk ak seen loxo ci sëy boo xam ni bii sëyuñu ko na leen leer ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi leen di teg bët amu leen ci benn droit yéen li leen war mooy lu ngeen ca fekk ci xéewal jàpp leen na seen xéewal la waaye waru leen a fexe ba dara di leen ca metti ndax bu ngeen ca taxawuloon di ca wax ak a def dara du leen ci metti ndax la jaadu tey war mooy ku góor ki bu takkee jabaram day dem ak jabaram loolu mooy yoon kenn takkalul sa yaay jabar kenn takkalul sa papa jabar lu dul nag nga xam ni ñoom ay mag lañ toll nañu fu ñu leen war a taxawoo nga am soxna indil leen ñu leen di dimbali parce que ba ñuy ba coono amee amoon na waaye nag du obligatoirement ñoom nga ko takkal de déedéet loolu du charia yow toppatoo sa ndey ak sa baay du sa jabar ko war a def yow yaa war a toppatoo sa ndey ak sa baay sa jabar nag bu ñëwee dimbali la ci parce que moo lay yoral kër gi di fóot di paase di togg di def yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu il faut que mu leer ci bopp ñëpp bu ko defee nag góor dafa am loo xam ne lii moom la warloog jabaram su fekkee ne am na lu ko cay jaxasem xelam moom la suñu borom di wax naan walaati taxaafuuna nushuzahunna fa izzuhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna fa in ataanakum fala tabru alayhinna sabila inna allaha kaana aliyan kabira suñu borom nee na ña xam ne ci ay jigéen dangeen ragal ñu ñu ñu dëgëranteeg yéen bopp ñàkk doxal seen wàll jigéen taxawaay ba ñu war a def ñu def ko fa ngeen leen yemloo ñu yem fa na ngeen bëgg ñu sëyee ko ñu sëyee ko su fekkee ne loola ragal ngeen ne du ko def nee na yedd leen leen waar leen leen xupp leen leen wut leen nag ku leen ca dimbaleet nag bu mu doon yéen ñaar rek nuu de déedéet yow am ngay mbokk moom am nay mbokk fexeel ba say mbokk nag boroom xel yu rafet ya ci say mbokk nga dem ca laaj leen seen xalaat moom itam nga dem ci ay mbokkam moom it mu dem ci say mbokk bu ko defee kenn ku ci ne bu kalaamee mën nañoo toog loolu moom la ñuy wax ca mujjantalu aaya ba nga xam ni moom la ñuy waxaat ci ginnaaw ba waaye lii mooy li nga xam ni moom la suñu boroom santaane ci góor su fekkee ne sa soxna am nay problème yow nag tàmbaleel sa biir néeg bu mu dem fenn bu mu génn gum seen néeg waxtaane leen ko seen biir yaag moom ba arrondir les angles su fekkee ne gis nga ne nag li ngay faj lépp nag mënta faju am na dool loo xam ne yaa ngi ko koy tere mi ngi ci wala am na loo ko sant te mu jaadu ci sharia te defu ko su boobaa nee na nga tong ko filma daa jaxi ci lal nag la wax maanaam su waxee lal xëy na mooy biir kër gi waaye tongoo boo xam ne bii nag ñasaw ñasaw ñasaw kooku moom xaw ma ne moom boobu baaxul moom nga xam ni kenn ku ci nekk da ngay nekk alimet sa borom nekk xott gi nga xam ni fu instant bu nekk rek kër gaa ngi waaye tàkk loolu itam taxul ñuy wax déedéet dañuy fexe ba nit ki daal li la naqari tongoo dana ko faj nit dana tong ngir faj ngir da nit dana mer mer moo xam ne mii merum faj lay doon bu ko defee nee na nga tong ko jàpp sa njàmbur ci moom nee na lala war nag ci wàllu togg ak lekk ak naan ak soloog ay soxlaam ak faj ko mu feebar nga faj ko kooku obligatoire la amul ci tong tong du ci bokk xanaa kay yaa ko daan may sa xaalis muy jënd yu sew sewaanam di ko neexal ak di ko defal yeneen ak yeneen loola sañ nga ko téye parce que du force lekk ak naan nga ko warloog moom solal ko bu feebaree dëkkal ko loolu nga warloog moom loola nag nee na boo ko meree nga tong ko foofa nee na su fekkee ne deful loola yooye yépp fajul nee na nga dóor ko dóor bi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee na boo xam ne bii da ngay dudoo wax doo doo patt doo daggub nopp doo ko bàyyi lëgët doo dammub yax kon kay xam nga ne dóor ba nekkul dóor boo xam ne bii dangay dóor ba kanam gi neewi déedéet waxuñu loolu de dafa am noo koy dóore dóor yoo xam ne xëy na mën naa saf ci moom te du tax nga gaañ ko du tax nga bàyyil ko màndarga du tax nga bàyyil ko lëgët loolu nag yombul kon su boobaa bañ dóor ba mooy gën ndax soo dóoree ci jamono joo xam ne jii nag moom boo bàyyee màndarga bu demee wuti certificat médical nga dem tëdd ca kaso ba bul àgg ci dóor moo gën moo gën donte charia may na la ko yoon wii ñuy dund tey moo la ko mayul kon bul yóbbee sa bopp mbamb moo xam ne mii dóor yaa la koy yóbbee man daal su ma naree àgg yow fi may def mbaam mbaam moom amal na ma njëriñ am na foo xam ne fii su ma fa naree àgg di dóor ay yet ma delloo la say way jur jàmm ne ñooy ndax daal yedd nga ko fajul yeddulu nga fajul woote nga ndimbal fajul tong nga ko fajul la ca war mooy su fekkee ne mën ngaa supporter loolu nga supporter ko ànd moom soo ko mënta supporter nga libeere ko mu dem jàmm ne ñooy yëpp bu fekkee ne jigéen lay itam moom it yàlla wax na wa in imraatun xaafat min baaliha nushuzan aw iraadan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulhan wa sulhu xayrun wa uxdirat al anfusu wa in tuxsinu wa tattaqu fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabira yàlla nee na bu fekkee ne jigéen it dafa ragal ne góor gi day sànq àqam ak yelleefam nee na wala boog mu koy tong wala muy def euh, euh, abandon de domicile walla boog ñu koy waxeeti euh, séparation de corps walla mu mu bëgg laa dal doye dal ñàkkal la fayda ginnaaweel la def la ci kër gi comme lu kenn xamul nee na su boobaa la gën ci yéen nee na du am benn aayul ci seen diggante nee na ngeen toog waxtaan ngeen ngeen toog waxtaan defar seen diggante te nee na defar googu de waay moo gën moo gën foofu donte bakkan yi nag nee na euh, ci ci ci ku nekk nit ki dafa dafa dafa dafa dafa bari ñoo xam ni li leen ñor ci mbir rek la ñuy seet la leen intéressé rek lañuy ñuy seet euh, nga xam ni mën na am jigéen ji dem na mi ngi tàmbalee màgget wala ku góor ki mi ngi am lu ko xaw a manqué wala wala nga tàmbalee wane ay jikko loola nag nee na su fekkee defar day ñëw loola dañ koy teg fële kenn ku ci nekk di rafet yàlla nee na rafetal yàlla nee na bu ngeen rafetalee su fekkee ne and ngeen ragal yàlla ci li ngeen di wax ak li ngeen di jëf yàlla nee na lépp teg na ci bëtam xam na ko kon abandon kenn du ko muñ dóor kenn du ko muñ saaga kenn du ko muñ toroxal kenn du ko muñ ñàkk dundal te mën ko kenn du ko muñ ñàkk koo teral kenn ko muñ ñàkkal ko fayda ci njab askan ci fe xeetam loolaat kenn du ko muñ loolu jaaduwul waxumalaak nag nga ne ko fa ñukk nag nekk ci sa bopp moom xamatoo ndax daanaka sax sa jabar la suñu boroom di wax ni abandon jabar dafa am àpp boo xam ne bii boo ci àggee par force da ngay taxaw lilladina yooluuna min nisaa'ihim tarabbusu arbaatu arbaati ashhurin fa in faa'u fa inna allah gafurun rahim wa in azamu talaaqa fa inna allaha samiun alim mu ne ñi nga xam ne ñii kat dañoo waat ne ñoom dootuñu laal seen jabar daatuñu seq ak moom dara su ma la nammatee nangam nangam yooyu bokkul ba tey bokk sax ma nga ca suratu euh, qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha bokkul ak euh, bii nga xam ni maanaam su ma la nammatee xam-xam sama day bokkul boobu beneen la waaye boo waatee ne jigéen ji daal maag yow dootul yow maag yow ci biir kër gi nangam nangam nangam loolu mu nekk ci biir kër gi fase woo ko mu tagga témbe nga bàyyi ko ci kër gi di ko romb gauche droite ndeyjoor ak càmmoñ ba cëg amoo ci moom soxla suñu boroom ne ñeenti weer lañ la àppal fi nga ko tàmbalee ba fa muy yem bu ñeenti weer ya matee nee na soo ko jéggalee ngeen dellu amaat jàmm di wax jàmm di seq li ngeen war a seq ci biir sëy su fekkee ne ñeenti weer yi dafa mat te yow bëggutu bëgguloo deltu ginnaaw wala moom it bëgguta deltu ginnaaw kenn ku ne campé ci position ah su boobaa nee na tas yéen yéen a préféré tas su boobaat nag yàlla dalay day day dàq ànd ci seenu tas donte nag tas moom nee ñu yi dagan te yàlla gën ko bañ nee na nee na ca la ca la ca la ca la tas bokk mbokk yi ñoom li nga xam ne moom la ci shariat seeg teg mooy wa in xiftum shiqaaqa baynihima fabcasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaaxan yuwafiqi llaahu baynahuma inna allaha alimun kaana aliman xabira mu ne bu fekkee da ngeen ragal seen diggante ñoom ñaar ami jafe-jafe jafe-jafe yu metti tar-tar nee na yabal ku maandu ku ku rafetum xel ci wàllu ku jigéen ki ak ku góor ki loolu mooy na mbokk yi toog daje rek loolu la wax nañu toog ñi rafet xel ci mbokk mi ñi amul xadar ñi nga xam ne ñii dañoo ñeme dëgg ñi am fulla ñu toog nag waxante ko nag te yàlla tax bu ñu ko raay bu ñu ko tàpp-tàppal nañu wax mbir mi ni mu demee ca digg digg digg ba nee na loolu moo war suñ ko defee nee na bu fekkee ne bëgg nañoo juba juboo de nee na yàlla mën na faa indi ab dëppoo ci xol yi bu ko defee xol yi dëppoo ñu delluwaat kon kenn du bàyyi ñaar ñu am problème sama yoon nekku ci sëy bi yéen a ko sëy yéen a gisante woon yéen a bëggante woon nu ngeen def nangam nangam kooku day indi musiba parce que bu ñu wéetee mën nañoo àgg ba ci ay extrêmes yoo xam ni réccoo cay am te mbokk su boobaa mbokk yépp ciy am wàll kon bu problème amee nañu toog ñoom bu fekkee ne àgg na ba ci moom mu génn seen diggante di law àgg ci mbokk yi na mbokk yi ko maye woon ñi ngi dund bu ñu dundul seeni frère wala seeni sœur a ngi dund bu ñu dundul seeni doom a ngi dund ñu toog kenn ku ci ne wax ci te yàlla tax ñu fexe jubale fexe defare fekk ba ba fexe ba ñëpp ñaar ñi nga xam ne ñoo am problème seen diggante leer waaye su boobaa farfarloo farlàqoo ak nës-nësal du ko defar de dañuy teg suñu baaraam ca digg ba ne ko xateet ku ci am dëgg ñu jox la dëgg ku ci amul dëgg ñu ne la amoo dëgg unsur axaaka zaliman aw mazluman wallul sa mbokk bu fekkee ne dafa tooñ walla ñu tooñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa nee na loolu daal moom mooy imsaak bi maaruf aw tasrix bi ihsaan atalaaqu marrataani fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ihsaan loolu alquran wax nee ñaari fase moo am ñetti fase amul ñetteel ba teqalikoo la kon nee bu fekkee ne dangay ànd ak jigéen yor ko yor bu rafet soo xamee ne dem nga ba yor mënta ñàkk waccal mu dem balay yàqu bokk yàq seen diggante indi animosité ngeen di law lawee ba see loola law topp seeni doom wala mu topp seeni sët wala mu topp seenu bokk ndax nag wa in yatafarraqa yughni llahu kullam min saatihi bu ngeen teqalikoo yàlla nee na man laata ngeen di sëy maa leen yoroon te gisantewu leen kon kii yoru la woon bi ngeen di sëy yow yoru yoroo ko bi ngeen di sëy bu ngeen teqaliko yàlla nee na kenn ku ci nekk maa lay jox sa wërsëg te gisante du am kon loolu moo war a doon ab ànd waaye muñël muy muñ te li nga koy muñ loo nga war a mën a am saafara te xamoo moom fan la toll ci xolam loolu du dëgg du yoon ku góor keet nga naan ko muñël ko muñal ko te li nga koy muñal loo du lu jaadu góor di doxaan wala muy naan sàngara wala muy guddee àll te nekk doxul lenn lu lu am njëriñ wala mu ñàkk yor njabootam ñàkk leen a jël alalam def ci ñoom walla mu leen di doyee dal wala xeet yooyu amu ci droit kon kooku da nga naan ko loolu ba ko jigéen dafay gàttu tànk gàttu lamiñ te neexub tontu di wax lu rafet dégg nga yem ci fi ko jëm jëkkëram yem loo ay xaritam ak ay àndandoom mu xam ñan la su fekkee ne neexul jëkkëram mu seet ko su fekkee tegu na ci yoon mu bàyyi leen ak yeneen yu mel noonu waxtaan yooyu il faut que ñu koy waxtaane ci biiru bokk mag ñeeg ñu baax ñeeg borom xel yu rafet yi ñu koy waxtaanee dana tax sëy normal bu fekkee ne yooyu nag dem nañu ba nga xam ne mënta koo saafara waaye nañ teel a teqalikoo balaa yeneen di yàqu yoo xam ne yamatul ci sëy ba waaye da koy dépassé dugg ci beneen cadre ko defee ñu yemale kàddu gi fii ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.